dikkati naa bu doon APR ab mbàjj la day moom président Macky Sall ma ngi ko daal di sàngoo tey tàpp tàppal la des calal ba nan kon Amadou Kaay tëdd fii sama wet dëgg la mën ngaa bañ a sàngoo mbàjj mi waaye jàppal ni doo liw te weñ du la laal du la biiw yéen kaayib di média bi mel ni ku ko duppee akub teg xel daal dinañ koy tegaat ci bopp alliance pour la république moom président Macky Sall laaj nag daal di ci lan moo tax moom président Macky Sall mi nga xam ne nee na jeexal na ci Sénégal ñetteeli mandat moom bëggul ba na leen ak seenum réew moo tax Sall moom nanguñu ne ko coppet daal di tegaat ci bopp partem bii di APR yéen kaay bi naan maan en tout cas moo wéy di jiite parti bi moom président Macky Sall geneen laaji ngi ndax Sall nag bëggul daal di wéy ne di joxoñal directoire politique bu APR bi nga xam ne fu Sall joxoñ rek ñu daal di kupp mbaadu nag moom président Macky Sall dafa tàmbalee way way woo xam ne mën naa këpp gaal di ko way nag ci tefes ndax nag bàyyi ba nga xam ne samp nañ Amadou Ba ca bës bañ ko doon sampee ñu soppi mbir ma nag di tampal président Macky Sall ay raay ka grade naan kon parti bi yaa ngi ci doy ci bopp taxawal Sall bul dem bul able te bul ko tayle mambay ñang ci vox populi naan dara moom Sall daal moo ma fi bàyyi bés bu takkee ay ma ki bagaasam ma daal di koy may fa yallaahu 24 heures yéen kaay naan man may ma ma ñëw rek ak mambay ñang wal fu ko di jéemeel ni ku naan kon mënoo cee ñàkk wax di ndax am nay kurpañ tell yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci seen biir parti bi te mi ngi dal nag ci kaw Amadou Ba mi wel l'exclusive yéen kaay nan kon xanaa gisoo ba faat ba bi gannaaw ba ni investir Amadou Ba la jël suuf daal di cere ji naan kon yaakaar looñu rek yow le témoin yéen kaay naan tout cas investiture am bi bari na ay nit bés bi le jour naan kon Amadou Ba def ay waat naan na wéyal liggéeyu président Macky Sall dinaa renforcer APR président Macky Sall naan kon yow Amadou la ngaamul sama bilan rek gis nga boo la ci sama ñaari mandat yii sénégalais yi faaw nu jox la bopp le soleil yéene kaay naan maan moom président Macky Sall nee na ko xam nga dan la baleel yoon bi lay ko ba mu set wecc kon Amadou yaa ci des doxalal yow ci boppam yaa ñu war a wan ne lii ñu la tabb nag matale nga ko daal di gagné élection yi l'enquête naan kon président Macky Sall sedd na lool waaye sàll sedd na lool boole koog nag di jël ay misil tuy tuy di ko sànni wel ndax xaajaloo bi am ci biir parteem ci boppam moo ko neexul 24 heures yéen kaay nan man en tout cas moom na Niang a nëbbuli dëggam di nee na candidature bu amadu Ba bii xel ci boppam moo ko nanguwul man nag dugguma ci politique ak blambaatu xam nga man ak Souleymane Jules Diop ñoo bootoon candidature bu Amadou Ba bii di roñ roñi daw ak moom tey jii nag ñoo ko wàccee ndànk Mame Mbaye xam nga la moo tax ñu wàccee ko problème mu confiance la waaye tam problème mu engagement ñun daal ñoo xool ba seppali wóolootuñu Amadou Ba ndax ñaxalul waa APR te it sonnalul waa APR te Amadou Ba mii dama koo sax wooluwul ndamam ci boppam laa amul xel ma mbay naan sama kàddu génn la moom moo di man ci boppam maa jàppalewul Amadou Ba waxtu waw la point ak ci naan kon lu ngeen rayante rayante jàppale ni moom Bougane Gueye Dany amalti na open press am nga ca turne diggante Daara Matam Kanel ak Podor turbine yéene kaay naan kon boobu APR nga neex wala ñu war a samp Amadou Ba moom président Macky Sall fëgg dënnam mel bi benn buur a fi am te man a man Sall ngaari lam tooro Bourguédé mel ni ku naan kon yaay sama candidat nag dëgg la waaye parti bi moom maa koy jiite le quotidien le quotidien naan kon président Macky Sall ma nga passé test Washington di daal di rafetlu la nga xam ni président Macky Sall def na ko diggante liberté publique yi ak xeex yi nga xam ni moom Sall mi ngi koy xeex guerre ci réew mi libération yéeni kaay naan maan Malal Diallo picc responsable APR ji da caaroy kaw ma nga naan en tout cas xëccoo yi xiiroo ŋaayoo gii day baaxul ci ñun DG ak ministre yi ñoom képp mënu ñoo tax a gañe di nag dugal seen loxo buñ bëggee am ndam ndax fi mu ne foofu la mbiri toll 24 heures yéen kaay naan kon xanaa déggoo Souleymane Jules Diop ak Mame Mbaye Niang da neeneen keccet leen ca jàppale wuñ tay Amadou Ba jàppale wuñ ko ëllëg tribune yéen kaay man joyanti yoon la Aïssata Tall Sall naan ay mesures yu yees moom Aïssata Tall Sall jël ko ngir nag détention yi yàgg yi mu daal di jeex ci réew mi Vox i nan kon boobu juge Ousmane Kane ma nga naan réforme yi nga xam ni bëgg nañ ko mënta ne ndax fi mu toll nii bëgg nañ loo xam ne daanaka dañoo bëgg jiital buum bi laataa xar bi di ñëw xamante ne rek buñ ko tàmbalee mënees na caa gis njariñ juge ba naan kon tàmbali gi ci boppam day am lu mu àndal te nekku fi l'observateur naan booba Aly Ngouille Ndiaye ngay wax di xam le kàddu yi nga xam ni maître Moussa Diop tuumaal na ko du dëgg te naan du yàq ay nit moo lay tax a am nguur moom Aly Ngouille Ndiaye naan Amadou Ba day bu jàllul deuxième tour du ko bett benn yoon tere terewul rapport ITIE yi am na jiixi jaaxa yoo xam ne am na ca dooree ko ci contrat boo xam ne daal dinañ koy xaatim 2026 sa dikkagul rapport ba di xamle ni secteur extractif bi deux mille vingt deux bii daanaka ñetti téeméeri milliards ci sunuy koppar lu ëpp ñaari junni ak fanweer ak ñeent ci ay milliards ñu jébbal ko fournisseurs yi deux mille vingt deux entreprise yi nga xam ne ñoo gàlloo pétrole ak miin ñoo ko amal ci réew mi la Madior Fall ne en tout cas dafa war di leer te rafetlu nan nag transparence bi ndax secteur boobee daanaka téeméer boo jël ci koomu réewum Sénégal juróom-ñaari daanaka ci ñoom lay joge libération yéen kaay nan man tës baa ngeeg pouponnière bu ndee la Madior Diouf ba ñaar ci xale daal di fay faatu ñoom enquêteurs yi njortu ne ñàkkub waral bañ ko laajee lan moo waral muy jël personnalité di leen tuddee tur yi ndeela ne ambiance moo ko ci dugaloon enquêteurs yi njortu ne koppartoo ko ci dugaloon en tout cas fi ne ndeela ci boppam mi ci garde à vue l'observateur di ma xamal ne ca géejawaay paa bi doon jàngal xale yi moo daal di jël daanaka fukk ci ñoom daal di leen di violer ban leen saytoo ñoom fukki xale jigéen yëpp am infection yéen kaayib dee média bi man daanelal ci man tës baa ngi ci man moom